الله الرحمن الرحيم يا ربنا إن الورى تدرى لأوليائك معا يشعون يا ربنا إن الورى تدرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغي سنت يالا بوير دي جولي مصطفى عليه الصلاه والسلام دي گنا سنتات بروم توبا ku dégg sunu kàddu yi nag xam ni waa daayira mu nawirul bunyaan di daayira Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bi nga xamante ne nii moo nekk fii ci Île de France ak mbooleem daayira Serigne Baara yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci France ñooy fàttali ak yëgale ak soññeewaat bis bi nga xamante ne nii moom lañ jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Baara fii ci Île de France muy màggaluk Serigne Baara gi. màggalu Serigne Bara gi nag ku ko dégg xam ni bis bu làmboo ay njariñ yu baree baree baree bari la ndax bisu cant la bisu ngërëm la bisu ñaan la bisu jaamu yàlla la ndax ci taarix ñëpp xam nañ ni bis bi xam Mouhamadou Lamine Bara ganee àdduna ca la ëndaale ngërëm li nga xamante ne Serigne Touba gërëmoon na ko ñeenti mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom fan la ñuy defee bis bi aulnay sous rue Louison Bobé 93 600 Aulnay kañ lay doon dimanche 3 février incha allahu rabbi bu 10 heures jotee ba 22 heures ci ngoon incha allah noo ngi ko yëgal mboolem ku bëgg yàlla noo ngi koy yëgal bépp taalibib Serigne Bara ñoo ngi koy yëgal bépp taalibib Cheikh Ahmadul Khadim ngir xam ne bis boobu noonu ñu ngi koy fàttaliwaat murit yëpp te xam ne bis bu mat a bàyyi xel la te bis bu mat jaayante la ngir ngërëm la nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Bara indi woon na ko ba jagleel ko ñeenti mag ñooñu suñu borom rafaatale ñu ngërëm loolu ngir ñu mën cee dajeeg moom kon ñoo ngi koy fàttaliwaat ñëpp di ko yëgalaat ñëpp te di ci soññ suñu bopp di ci soññ mbooleem koo xamante ni ab si Sëriñ Tuubaa la di ci mbooleem kuréel yi di ci soññ mbooleem Baye Fall di ci soññ mbooleem mag ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Île de France di ñaan Serigne Touba dimbali ñu ban daje cee ngërëmam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu baqaratil mukarrama wa ali imran wa bi nisaa min al aswa